naka noonu bépp néeg boo xam ne néegub yàlla ci kaw suuf waaye ci sa ala taqwa da ngay am ak jokko ak néeg boobee kon néegub yàlla du lu ñuy foye du lu ñuy móorante du lu ñuy képp koo xam ne yaa ngi def sam po wala yaa ngi def sa caaxaan danga nga génn génne néegub yàlla néegub yàlla mën nañ koo def ci ay lu mel ni ay nataal cib téere wala ab sàjjaada bu ñuy julee waaye wal iyaasu billaahi jëmmi néegub yàlla rawatina nag jënga jëf ca jëmmi cheikhuna ahmadul xadim jaarale ko ci ab taal teg ca teg ca kawam ay paaka wala ay siiso loolu ñàkk kersa ci boppam la ñàkk teggin la ñàkk xam la yàlla na sunu borom jéggal ci wax gi ñu koy wax sax ak ak xam gi ñu ko xam naka noonu borom bi tabaraka wa taala ba muy wax wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiisi li yudilla an sabilillah bi xayri ilmin wa yattaxiduha usua ulaika lahum adabun muhin bu fekkee ay ma nga wàcc ci nadar ibnul xaaris ma nga xam ne ba alquran wàccee da doon wut ay xuraafaat ay nettali ay yëkkati wut ay jigéen ñoo xam ne ñoo koy nettali te neex baat boole koog di fecc ngir bëgg a gàllankoor téere bi waaye loole dafay wéy ba bésub tey képp koo xam ne dangaa def sa mecce muy way ak fecc ndax Abdoulaye ibnu Mas'ud radiallahu taala wax na ne te ba mu koy wax daf koo waat ñetti yoon ne lahwal hadis mooy mooy way ak fecc alxina wal masamir alxina wal masamir képp koo xam ne fecc ak way mooy sa métier na nga xam ne yaa ngi jaar ci yoonu yoonu safara te boo boo dëppul na nga àgg daf koo waat moom Abdullah ibn Mas'ud te ku ràññikoo la ci saaba yi ne lahwal xadiis mooy loo xam ne da lay soxlaal xolab bi def bi ci lu dul yàlla day jeexal ay waxtoom ci day jeexal ay waxtoom ci loo xam ne du aw yiw loola buloo ko tër lu may ay neen ay baatil la kon képp koo xam ne loolu mooy sa métier loolu mooy sa bëgg-bëgg loolu mooy sa dund sunu borom nattu na la seytaane mën na la waaye da nga ciy génne cheikhul xadim cheikhul xadim moom sunu borom defal na ko li mu ko defal lu baax la ko defal ñu baax la ko booleel waaye waaye waaye gën naa métti ñi yëg seen kàddu ne Serigne Touba lu nekk la am ku nekk la am Serigne Touba lu nekk la am ci lu baax ku nekk la am ci ku baax waaye lenn lu bon bokkut ak moom àndut ak moom. دجانها قوم أحبوا نمحت قلوب من لي أجابوا صلحت xel yi ñi nga xam ne leer na xool yi nga xam ne baax na ñooy ñi ma sopp ñooy ñi ànd ak man inna alladina diina xuloobu man liya ajaaboo du jaanuhaa qawmin ahabu di mahat xuloobu man liya ajaaboo saluhat ñi nga xam ne sopp nañu ma sunu borom dindi na seen lëndëm lëndëm xel ñi nga xam ne wuyu nañu ma sunu borom defal na seeni xol kon képp koo xam ne sam xol daa lëndëm wala sam xel daa yàqu na nga xam ne ànduloo ak Cheikhul soo ni nga ànd moom ne kon sëriñ bi li nga xam ne borom bi defal na ko ko dujaanuha qawmin ahabu nim mahat xuluubu man liya ajaabu saluhat ñi nga xam ne dañu maa sopp sunu borom dafay dindi seen nëx-nëxi lëndëm lëndëmi xel xalaat ñi nga xam ne dañ ma wuy si sunu borom day defar seeni xol xuluubu jumlati alladina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslihu ñi nga xam ne sunu borom nanga na ñu texe da seeni xol daf may jublu ma teg leen ci siraatal mustaqim yoo ànd ak man waaye dañu xam nag ne lii di xew ci jamono ji ba képp koo xam ne am nga pas-pas da ngay mujj dangay ngay tiit da ngay mujj dangay ngay jàq waaye du loo xam ne gan la ci diine ji Moustapha sallallahu alayhi wa ba mu nekkee Madina Munawara xew-xew yu bari xew na fa dem na ba àgg ci foo xam ne génn na ay nit ku ñuy wax an jasata te da daa tuddoon ne jullit la bokk ci saxaaba yi waaye Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam da koo xëy génne war a ndax aw beroom xëy na bés wax ni te Abdullah ibn Mas'ud moo ko nettali amul benn yonent boo xam ne sunu borom mës na koo yónni la tàmbali ci maam sunu aadama ba ci man lu mooy yàlla da koy booleeg boromi pësteef yoo xam ne dañuy roy ci moom di ànd ak moom waaye am ti lu may am am mbalxas xëy ñëw mbalxas moo xam ne buñ ko doon wax fii mu nekk jamono ji dañuy wax ay théâtre kat ñëw yoo xam ne dañuy wax luñ dul def dañuy def luñ leen dul wax sallallahu alayhi wa sallam daal di wax na ne bu képp koo xam ne dem na ba taseeg ñu mel lool na jihaat ak ñoom ci kàttanam su amul kàttan mu jihaat ak ñoom ci ay waxam su amul wax ju mën a jëriñ mu jihaat bu sibleel ci xolam te loola mooy mu fa fa la imaan mën a yem ma min nabiyin ba'asahu llahu fi ummatin qabli illa kaana lahu min ummatihi xawaariyun wa ashaab yaaxuzuuna bi sunnatihi wa yaqtaduuna bi amrihi summa innaha baada dalika taxlufu xuluufun taxlufu xuluufun fa xalafa min baadihim xalf xuluuf boo xam ne yaquluuna maa laa yafaluun dañuy wax lu luñ dul def wa yafaluuna maa laa yumaroon dañuy dañuy jëf luñ leen digalul nee na ñooñu ku leen gis ku nekk na nga ko dindi ak sa kàttan bu la yàlla joxee kàttan su la yoxul yàlla joxul kàttan nga dindi ko nga reeteel leen bu fekkee reeteel ba dana la su fekkee reeteel ba du jëriñ nag sib leen ci sa xol walaysa waraa dalika min al imaani habatu xardalin yett yooyu ku ci mënul dara nag xamal ne tombab gëm yàlla yoratoo ko loolu xewoon na ma Madina Munawara Cheikhuna Ahmadul Xadim radiallahu taala anhu ci jaareem wax na wax joo xam ne maa ngi ko jële ci Serigne Amidou Lo booba ak léegi fukki at la ak ñaar ndax ñaar fukki fan ak ñaar ci septembre 2004 laa ko jëlee ci moom ca Paris mu ne sëñ Mat Lo Maxtaar taawam sëñ Maxtaar Bintaloo moo ko ko wax ne sëñ Maxtaar nee na sëñ bee ko ko wax wax ji day joo xam ne ñépp ko war a dégg ndax sëñ bi sëñ bi wàccoo na ak nun lépp lu waroon a wax wax na ko lépp lu waroon a jëf jëf na ko nun noo ci des dafa wax ne ndaxam maxtaar am na njiiti mbooloo yoo xam ne ña nga jiitu rek seen mbooloo topp ca seen gannaaw ña nga seen yoon wa gën a jub ca sabara ñu wutali ko te maxtaar waxuma dañuy dox wala dañuy waaxu waaye dañuy daw te kat mataar bu ñu taxawul kenn mën leen a tee àgg lenn mën leen tee àgg te kat mataar ñooñee nee na nee na ñoo maay seen sëriñ sëñ bi kon sëriñ bi xaw xamoon na lépp wax na lépp loolu loolu sëñ bi na ko wax ci ay wolof ndax sëñ bi bu daa wax ak wolof yi day mel ni du wax arab su daa wax ak naar yi day mel ni du déggul wolof waaye noonu mu ko waxee ci ci wolof la ko waxee ci arab siixa allazina tarakul ibaada li naari man man lam yuti abaada safiha man safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu la yuqbala rajaau jannatin bila taati fi sunnatil maahi gururun yaati sëriñ bi nee na sunu borom màng na ñi nga xam ne dañoo ne ci àddina tudduñu ko jaamu màng na leen jëme leen sabara jaamu gi waxuñ jaamu ci sa na nga ko bëggee nam la neexee jaamu goo xam ne da koy teg ci sunna lay doon a ah alhamdulilah rabbil alamin nag bi nga xam ne kii fi nekk tey ñu di ko xooli jëmmi Cheikhul Khadim fa Cheikhul Khadim tegoon tànkam lay teg jéem a teg tànkam ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon wutu fi sëriñ bi fañ doon jaar fa lay fa lay jaar lépp loo xam ne lu war a wax la mi ngi koy wax lépp loo xam ne mi mu war a jëf li mi ngi koy jëf. digal nu nuy jaamu yàlla tey wormaal dëkk bi tey wéyale jàngalum sëriñ bi tey nangoo liggéey te jullit yépp boole seen bopp tomb yooyu ak yamel ni moom ci la sëriñ bi nekk moom lay wax moom lay jëf te sunu boom defal na ko ci tawfiix boo xam ne ren jii ci boole jullit yi àndandoo tawfiix boo xam ne ñu ko fekkeegul bariwul waxuma Sénégal waaye Afrique ak Asie ak Europe ak al mamlaka al arabia saoudia bokk benn bésu julli loolu ñi nga xam ne fàttaliku nañ fàttali fàttaliku nañ bareegul te te moom loolu rek mooy yitteem jullit yëpp àndandoo jullit yëpp àndandoo léegi yoonu murid lépp loo xam ne ndigali sunu borom la ñoo ca man ku dul moom wala ñoo ca war a man ku dul moom ku dul ñoom lépp loo xam ne tere sunu boroom la ñoo ca ñoo ko war a gën a wattu ku dul ñoom waaye bokk na ci li yoonu murid gën a bañ mooy jaxasoo góor ak jigéen njaareem am na ñu ay xew-xew yu fa mas a xew ba sëriñ bi àgg ci ñooñu mu ne nañ ko abal kër gi nañ ko abal dëkk bi te loolu bañ ko toppatoo ci xew-xew jaxasoo góor a jigéen la yem la la la Cheikh Mouhamadoul Moustapha radiyallahu taala anhu ca doon na liggéey am semb waaye ba dikkee fekk góor ñi ak di jaxasoo dafa daal di joxe ndigal na góor ji fare ak wet jigéen ñi fare ak wet waaye buñ jaxasoo ñuy wax loo xam ne kenn xamul lu doon ci wolof mu ne déedéet dañuy wax yaa rabbi zidni xayraati Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiallahu taala ci bi mu nekkee ci ci ci dëkk bi ci réew mi jiite Cheikh njabootu Cheikhul Khadim di tukki am na tukki ba mën a tukki dem ci kër goo xam ne kooka daf koo fonk lool bëgg koo teral lool waaye am koo xam ne ca kër gi dafa mel ni ku mën a terle la kuñ fonk la mu mu sant ko mu faree woo néeg sëriñ bi ca njaboot ga waaye ba ko sëñ Abdul Ahad radiyallahu gisee ñaari yoon dafa woo borom kër ga ba mu ñëw mu ne ku jëmm ji na ko sama bët bi noppee gis ba ma abal la kër gi ñoom ñoom jaxasoo góor ak jigéen mooy seen bañ Cheikh Mamadou Mourtada Mbacké radiyallahu taala moom kenn mu ne tuuti ma ko maa ko fekkee ci këram gi ci wetu ci ci jumaa ji njaboot gi dikki di nuyoo doomam joo xam ne doomam ju jigéen la ñëw te eggagut ci mu kàllaf ñaari at weesuwu ko. ñëw di ko jox loxo sëñ bi daf ne ko jigéen du joxe loxo moom moom déggul la sëñ bi wax mu taxaw rek joxe loxo sëñ bi ne ko da def li la wax jigéen du joxe loxo gone gi déggul li ñu ko wax mu taxaw sëñ bi ne ko defal li ma la wax waaye nit a jógee fii jàpp gone nga yegale ko suuf kon kon bépp mbooloo moo xam ne Serigne Touba la jël yaakaar di àndandoo jaxasoo góor ak jigéen nañ ko génne ci seen programme mooy mbañu sëriñ bi lépp lu bon la bañ waaye jaxasoo góor ak la ca gën a bañ. lépp lu baax la bëgg waaye julli ak alxuraan la ca gën a bëgg kon képp koo xam ne yaa ngi woote ak cofeel ci sëriñ bi yaa ngi wax ne sëriñ bi nga àndal gën a la fonk waxtu yu juróom cig laab gën a la fonk jàng alxuraan cig laab ak ak teewlu lépp loo xam ne lislaam na ko sib nag na ko sib te te bu la ca kenn seen waaye na bàyyi nag na na na nga gën a xel ci bàyyi nga ci jaxasoo góor ak jigéen jaxasoo góor ak jigéen moom yoonu murid lañ ko adde muy seen mbañ nit nag mbañam mooy loo xam ne da ngaa fi ne boo ko laaj boo ko laa da nga yàqulu da nga yàqul da yàqule sëriñ bi nag tabaarakallaahu jaanam wàcc na waxtu wu dara xewee lu mu war a wax wax na ca te lam cay wax itam day leer nañ ñi jot sëkk ba du aajo dolli du aajo yokk ba noppi la muy wax nag ca la nekk képp koo xam ne yaa ngi jàkku yaa ngi yaa ngi jokku ci moom yaa ngi ànd ak moom ci yoon wi nga xam ne mooy yoon seexul Khadim na nga dellu ci jàngaleem sëriñ bi di ko jëfee ngir li ma ci laa lépp loo xam ne mooy tari nga bàyyi ko sëriñ bi wax na lu ne ba muy wax mu di saadix na war a mel ci téere bi Cheikh Abdoulaye njëkk a mool radiyallahu taala dafa wax ne murit bi moom daa war a jël sëriñam def ko muy digaleem digganteem ak boroomam jàpp ne ndigal lu jëm ci moom ci borom bi la jógee tere gu jógee ci moom ci borom bi la jógee képp koo xam ne parce que loolu li mu bëgg dana ko am tey li mu bëgg ëllëg dana ko am waaye sëriñ bi nag mooy kan wa kullu cheikhin yaamuru aw yanha bi gayri isnin min allahi tabaraka wa taala wa min rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa yaamuru min jihati nafsi wa hawa aw yanha min jihatayhima fa dallul mudil fa dallul mudil sëriñ bi nee na bi waxee di am murit ne war a mel def na bépp sëriñ dangaa war la digle nay digale sunu borom la ngay tere nay tere sunu borom waaye bépp sëriñ boo xam ne yaa ngi digle ci sa bakkanu bopp yaa ngi digle ci sa bànneexu bopp yaa ngi tere ci sa bakkanu bopp ngi tere ci sa bànneexu bopp nee na dangaa sànku te ko ànd danga koy sànk fa daalul mudil fa mudil kon fa nit mi faatagul nañ dellu ci sëriñ bi sëriñ bi nekk moo fi nekk ñi ci ku dul sëriñ bi nekk ab taalibe nga waaye comme ci mën a doon nag bu fekkee gis nga ne ma ngay xeeñtu sëriñ bi kooku xeeñtu ko warugar la ndax dana jëriñ tey dana jëriñ ëllëg waaye koo xam ne wóor na ci wóor a la mu nekk bu sëriñ bi di ko day samp aw xel ndax sëriñ bi du ko sànni aw dala aw yet lay jël aw yet lay jël ca njaareem Cheikhuna Ahmadul Xadim am na bunt boo xam ne ku ñuy wax sëriñ yuqum juuf la fa teg jox ko nguulal yet ne ko bunt bi ku fi jaar kuy góor bu laaj kii comme doon na yet bi dal ku fi jaar kuy góor bu laaj kii comme yet bi dal ndax bunt bi dafa am ñoo xam ne ñoom lañ ko defal mu ñu nekk ci biir kon kon am na loo xam ne théâtre la am na loo xam ne théâtre la théâtre képp ko ànd ak sam xel waroo caa bokk waroo koo seetaan ndax day yóbbu sa dund day yóbbu sa sa sa lépp lu baax su fekkoon ne am nga tombam lu baax tey seetaan théâtre da ko yóbbu su fekkee amoo ko nag da yokk musiba kon ni ñëpp delluwaat ci jàngaleem sëriñ bi ni ñëpp xeeñtuwaat morom sëriñ bi ni ñëpp déglu li nga xam ne moom la kii ko fi nekkal di wax guddi ak bëccëg ñu jéem caa tënku suñ ko defee suñ tey suñ tey dana baax suñ ëllëg dana baax képp ku nekk nag yaa ngi ànd akom xel sunu boroom daf laa jox xurriyatul ixtiyaar bu la neexee di julit bu la neexee di yéefar bu la neexee di murit bu la neexee di leneen kon sunu borom moom xorriyatul ixtiyaar na ko jox bépp mu kàllaf waaye bu la joxeem xel nag xel mi ci boppam xel xel li lay lay jariñ ngay seet li lay jariñ ci àdduna ji nga di ko def te bañ a ànd ak bàkkaar seet li lay may ak texe bu ëllëgee nga di ko def te loolu du dara lu may jaamu yàlla jaamu yàlla gu sel topp Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci sunnaam Cheikhuna Ahmadul Xadim mi nga xam ne foofu rek la nekkoon amutoon ci àdduna lu may xeeñtu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam laysa liya al yawma xaajaatun uammiluha si waqtifaika qafwal qalbi wal badani nee na àdduna ji aw ma ci bëgg-bëgg aw ma ci soxla aw ma ci lu may xeeñtu lu may ne diib ci tànki Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di ko xeeñtu ci biir di ko xeeñtu ci biti kon yàlla na sunu boom defal tawfiq ñu jéem a tënku ci diggale sëriñ bi bàyyi ay tereem te ñaan sunu borom moo ñu ci loolu ba keroog bam nuy soxla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.